ko audio bii ne yow El Hadj bi mën a la loon Chine dama ne lii tegu ci kaw tànt bi te nga commencé ko tànt sama alal la jël ko tegal ma ko léegi sama kër bu dee xamoo ko nag kooku beneen problème la te nag du ma koy ku yow xak yow koy dof dof lu nag ndax bu la neexee sa baay laa bu la kare sa baay laa maag sa baay ñoo bokk kenn ku ñu jur te bu la Alaaji Ibrahima waxoon doo dof doflu bu dof doflu sama kaw jox ma sama matériel bi ma la jëndaloo te mooy li nga xam ne boo ko degul ci tànt bi du mën a nekk tànt commencé nga fan yi di ci liggéey ba démb waaw wàcce ko boole koog la la nga yéegalagut jox borom alal ji alalam kër gi nag seytaane daf fee dugg jaxase ko ndax yàlla dafa dogal suñu baay Ahmad Khalifa dañoo toogoon fii àddina bi yépp di ko dégg mu taxaw ne fekk lu jiitu loolu xalifa bi moo ne dafa bëgg sant Macky sàll mu jëndal ko tànt ñu def ko fii ci Léona Niassène ginnaaw ba nga xam ne alaaji Ibrahima mébatoon na ko radiyallahu anhu yàlla dogal la mu dogal Ahmed xalifa jóg ci jàmbaar ga ak ca mbaax ga ne ko ñun soxlawuñ tàntu Macky sàll ñun tàntu Khalifa Niass lañ soxla te tàntu Khalifa Niass boobu ràngoo naa ko laajuma ci kenn benn dërëm lépp dinaa ko def ba mu mat def na ko waaye mat googu nag des na duwal na ci xaalisam lim ci def ci xaalisam mat na quatre-vingt-deux millions lépp suma loxo bii la ko teg man la yónni woon ma dem Chine defal ko commande bi indil ko ko fii ñu samp ko fii ñëpp bég ñëpp kontaan waaye seytaane bëggul lu baax seytaane nag bu bëggul lu baax yu ko bëggale yàlla dogal seytaane ru dugg na ko mu taxaw ne tànt ba mu joxoon xalifa ñas nanguwaat na ko muy wax ju xeebu nag sama baay la nag waaye dama jéggal waaye wax ju xeebu la nag am na lim ci def ci diggante bi loolu duma ci wax ndax loolu jarul wax itam waaye dama bëgg buñ ziyaara tey ëllëg di dimanche tant bi danañ ko démonter delloo ko borom ndax maam xalifa moomatul tant bi tàccu rek bëgguma tàccu rek wax dinaa ci ñëw nag ay tàccu rek dooyut de ndax dañoo toll ci jamonoy jëf waaye tolluwuñ ci jamonoy wax te ku jëf yàlla xam na ku jëfu ci yàlla xam na sama baay alxaaj ibrahima daana wax ne nag yàlla du fay mukk wax bàyyi jëf comme tant bii maam xalifa moomatu ko waay waay waay waay saari'u ila magfiratin min rabbikum taalibe nag cette fois si yéen laay waxal lépp lu fi samp bu ñu la lii lu mu sant rek ñu ne ñas loolu nag gàcce si ñun taalibe ma bëgg balaa ñoo génn tànt bii ne cent million yu mat xam naa dana jaaxal yu bari boo xam ne boo fa bëggoon euh, dajale un million du mat tey ñu ne la na cent millions yi mat ziara baat mi dina feeñ tey jii jërëjëf olof njaay nag dafa ne bay ci sa weewu tànk